sama gars yi nag euh, mun nañ ni kii di euh, Marlo ak euh, aliment amoon nañ benn lii di rendez-vous bi nga xamante ne waroon nañ ko topp ba mu sës mais mun nañ ni gars yi liñ ko mujjee pose ndax soo xoolee nii lii di xew code bi moo tax affaire boobu noonu suñ ko fi indee du am sens te tamit du am njëriñ nu mu waree amee njëriñ moo tax gars yi dañ kaa mujjee pause bàyyi noonu mu sedd ba nga xamante ne lii di xew code bi jàll ba pare ñu doog a lijjantiwaat loolu noonu. moo nekk li nga xamante ne jubóo kii di euh, euh, Marlo ak euh, kii di aliment ndax loolu am solo la te jigéen yu bëri yaakaar naa ñoo ngi koy xaar si li nga xam moo nekk séeri bi ndax Alima namoon nañ ko trop namoon nañ ko trop waaw moo tax it yi bëri fekkeewu ko te tamit moo ngi doon manqué si kër gi ndax moom moo gënoon moom moo doon gën a neexal séeri bi te mun nañ ni ba mu demee ba léegi gars yi ñoo ngi koy laajte mais nag yàggatul dara léegi mu ñëw te tamit euh, léegi mu gën a neexal série bi te kii di Soxna Batoor yaakaar naa dina defanteeg kii di Alima ndax euh, Alima du ko bàyyee mu mu toroxal lii doom doomam yi te tamit euh, dina résister wu te yaakaar naa foofu noonu rag dina fa am rag bu métti loolu nag la ñuy xaar yaakaar naa Soxna Batoor si pare si kii di kodd si kii di Alima nag la jubali directement ndax xam na ni Alima léegi mu ñëw te tamit su ñëwee du ko may mu koy bu bunduxatal si kër gi boobaa rag lay doon rag bu takkarnaaje